wajalilaayi Tuuba ci kanam nooru daare nii seenub yëngu ci liggéeyal Sëriñ Tuuba ci commission sociale tey nag ñu ñëwoon ci ndigalal sëriñ Habibu mi nga xam ne moo jiite Touba ci kanam Nourou Darayni ak bokk yu tedd yi ko àndal ñu toog ak sëriñ Abdourahman mi nga xam moo nekk ci daara ji nga xam ne ñoo sasoo liggéey boobu ti jàng kaamil yooyu sëñ Tuubaa digle woon ah kon nag ñu jox ko ay kàddu mu leeral mbooloom sëriñ Tuubaa mi nga xam ne ñoo nekk ci Tuubaa ca kanam mu indi ay leeral ci liggéey boobu yi ñi nga xam ne bi Tuubaa ci kanam tàmbalee ba léegi eh, ñu ngi ci yëngatu di ci def lañ mën ak lañ mënu yoon wi sax Mouhamadou Mountakha ak mboolem kilifa kilifa yoon wi ñëpp. li jot jot suñu nuyoo tam ci euh, Cheikh Mouhamadul Habib Cheikh Mouhamadul Fadil bi nga xam ne moo jiite liggéey bii di Touba ci kanam Nourou Darayni di leen yóbbante am nuyoo di ko jaar seen seen ci yéen sëñ Mourtada moom Cheikh Mouhamadou moom Cheikh Abdou Fatah moom Cheikh Mouhamadul Fadilu ak Moustapha Dieng mi mu àndal ñu ñëw fii nag tey ci daara ji nga xam ne moom la ñuy woowee daara kaamil dëgg-dëgg tur ñu bari xam nañ ko waaye des nañoo xam luy dëgg-dëgg daara kaamil ndax ñu bari jàppee nañ ko uh, kàggu gee ci kanamu jumaa ji waaye dëgg-dëgg daaree kaamil du jàng alxuraan képp bis bi yàlla sàkk tuddil ko boppam daaree kaamil ñooñu nag moo wax leen ne bis bu ne bu ngeen xëyatee na ngeen daje jàngal ma ñaari kaamil ci suba teel gi su tubaaree ngeen jàng benn bu takkusaan ngeen jàng benn guddi gi àjjuma nag mu yàq ne ca guddi ñu dajawaat def yeneen juróom-ñaari kaamil noonu noonu la ko sampe woon nga xam loolu boo ko seetee ñeenti kaamil yooyu bis bu ne boo amee juróom-ñaari fan yi rek da daal di am ñaar fukki ak juróom-ñett te kon xam na 4 euh, ak sëriñ bi xam ne kon xam na 28 ak sëriñ bi loolu nag 1904 la ko la ko la ko tegee noonu nii ba fii ñu koy waxee mësta mësta bañ am benn bis boobee ak tey ji ay kuréeli kuréeli kuréel ay mag ñi dégg ci yoon wi ñëpp ak ci sant yëpp jaar nañ ci liggéeyam bii nga xam ne ñëpp mas nañ xam ne mooy liggéey bi ko gën a ci liggéeyam yi loolu moom kenn ëppale ko moo tax liggéey bi nag euh, fu mën di toll rek ki yilif yoon yi moo yilif moo ci am baat ñi fay dugg ñëpp ci kàddam lañ fi duggee li fi dox lépp itam ci ndigalam lay doxee ñoom nag seen liggéey ñoom amatul fenn fu ñu yëngu jëm ku ci xas bokk am na saatu yu ñu teg yoo xam ne dootoo wuti fenn lenn du saa boo xëyee rek fii ci liggéey bi sëriñ bi yor la boppam ci saayir ak ci baatin ci biir loolu nag ci ci ni ko xamee naka jekk moo war lu woon seen lépp moom fu sa wax ne sama ñooñ ñoom la ci jublu mujjoon na nag wut ab néeg néeg bu mag boo xam ne dafa naa jële seenub dund ak seen koddaay ñoom ñi yore daara ji di leen ci di leen ci dimbali boppam ndax moom lu leen fan dimbal la waaye la ña koy def la ñu wut ci war mooy ngërëmam waaye lu mooy kon dimbalee ngir bëgg seen xel dal ak ñu bañ a wuti fenn leneen ci biir loolu nag kuréel gi nga xam tam kuréel sëriñ bi la ñëpp xam ko murid yëpp xam ko ak fu a ne muy Touba ca kanam nooro daare ni nga xam ne tey ji yaakaari murid yëpp la ndax ñi ko ŋànk ak ndax li ñu war ne tañ gis ko tam leer nañ ñi ñoom tam boo xoolee dafa mel ne batin boobee ak ak ak secret boobee jël xam nañ ko ca ña ca ndax koddaay googu sëñ bi daan def loolu ñu ñi ñu ngi ko seq ak waa daara ji dund boobu sëñ bi daan joxe ñu ngi ko seq ak ñoom ba noppi nag wëbatiku sëñ bi daan def kër ku am wala nit bu mës a am bala fay jëfandiku waa daara ji la fay yóbbu ñu jàngal ko ay kaamil loolu tam ñoom ñii ña ngi ca barkeelu mboolem seen liggéey yi di dégg ñu koy yëkkati yëpp ci ak ci yeneen waa daara ji ñooy bu ñu sos xeet xeer ñoo fay dem ñoo fay dem ñaan ñaan fa bu noppee fay dem ñaan fa ñu soog ko tàmbali jariñoo yooyu yëpp nag di mbiri sëñ bi yoo xam ne ñoom ñi ku leen xam te gis ni ñi doxee da nga xam ne génnuñu sëñ bi ci genn wàll si biitam tawfeexal na leen ba def nañ ci xol yi xol yi ñëpp ah, ñoom tam ñuy wane loo xam ne daal ñi ngi dimbali di ndax yi sëñ bi gën a soxla te mooy dimbali ñu féetewoo ci la si lislaam bi ak dimbale ñi nga xam ne dañoo yaakaar yërmande sëñ bi bi jumaa ji ñu ngi koy def ay liggéey yu am solo ci ñun jàngkat yi mu ñuy fa neen féetuwoo nañ leen taxawoo ci anam yoo xam ne bëgg su lim ndax ñoom liñ def li mu rëy rëy ci ñun ñoom jàpp luñ xeeb la moo tax ma ne si ko ma luñ toog toog di ko lim waaye daal na nga xam ne benn waxtu seen loxo di jug ci daara ji amut loolu nag dañu ko ngir fi ne waaye sëñ Tuubaa bi moom la ñuy dàkk moo tax ñu koy jëf ñu bëgg nag murit yëpp xamee ko noonu ah, gën ci am farlu baax a baax a baax xaddee ji nga xam ne moom weer wu ne nga xam ne tam moom la ñuy moom la ñuy laaj ci waxtu wu ne ñëpp gën cee farlu xam ne li ñuy laaj mënees na ko waaye fi li ñuy joxe xamees na fi mu baax a baax kon képp koo xam ne bokkoon nga ci na nga xam ne loolu ci liggéey bi la bokk li def ci ay réalisation ñëpp di ko gis nga xam ne liggéey biir la euh, ca muy ca muy dugg ma wax léegi képp koo xam ne bokk góor kon nag kon nga xam ne ko mbir maa ngi noonu liggéey Sëñ Tuubaa daal moom moom la ñëpp bëgg waaye ni ko ni ñu bëgg nag mooy di ko gis ci anam gu leer te loolu yàlla yàlla dogal na ko fii Sëñ ko boppam ndax li mbirum sëñ bi rek la du xalaatu kenn xalaatu sëriñ bi la ñooñu am yor ko kër yi murid yëpp dañ ne ci ndax loo xam ne da féete kër boo ñëwee tey mboolem boutique Sëñ Tuubaa yi ak mboolem sëñ bi defaral boppam da fekk ñëpp ci biir ci biir liggéey bi ñu bokkoo ngànk muy muy muy liggéey sëñ bi di àlali sëñ bi kon ñu ngi ci soññaan ñëpp ñëpp bokk ci góorgóorlu lu baax a baax ci hàddiye yi waaye tam ci waa social tam nga xam ne ñoom tam seenum liggéey ci eh, ci ci noonu ma ko waxee léegi ak li jàppalee ñi nga xam ñoo ko a déeg ñi am ay tuumuranke yu mën doon dañ leen jàppale loolu tam ñëpp te leen seet bët kon loolu tamit googu tam ñu ngi koy soññee bu a baax a baax a baax fu ab murit mën ko ci soññi lu mu ci mën a na koy def nga jëm sëñ Tuubaa jëf rek ma nga àgg fa rafet na lool sell na matale na kon nag muri sëriñ yi nga xam ne dañoo am yéene ci liggéeyal alxuraan ci dëkkub sëriñ Tuubaa bii rawatina nag ñii nga xam ne ñoo nekk ci daara jii nga xam ne sëriñ tubaa ko sosoon kon nag murit yi ñi ngi leen di woo yéen ñëpp kenn ku ci ne am nga ci loo xam ne mooy sa responsabilité mooy liggéeyal Serigne Touba ndax murit bu ne xam nga ne liggéeyal Serigne Touba moo la war rawatina nag ci alxuraan rawatina nag daara ji nga xam ne moo ko sonjaloon boppam mu di bëggam mu cay gont di ca xëy di ca fajaru di ca def lépp sëriñ Abdourahmane kaddu yi matale na sell na noo ngi soññ murit yëpp kenn ku ci ne na ci tàbbal jëfam xam ne lu ci waay def mu ngi peggoog yaa ngi ci peggub Serigne Touba. Serigne Touba gis na ko te na ko fay kon ñu ngi ñaan ñépp kenn ku ci ne na ci tabal sa loxo ngir yàlla jëmi Serigne Touba xam ne Touba day dem ca kanam ku bëgg a dem ca kanam gaal gaa ngi ni taxaw na kenn ku ci ne na ci def sa loxo wasalaamaaleykum wa rahmatullah